seen lim takku lool ñoom ñoo ñee di jigéen ñiy jaay lii di fruit foofee ca pégur national ba nekk ca jam ñaajoo jamono ji nag ñoom ñoo ñee seetlu ne ñoom tamit muccuñu ci crise économique bi nga xam ne mbas mi da ko waral waa am nañ gàllankoor bu bari sax bu bari ndax njaay mi doxatul liggéey baa ngi nii dara doxul covid bi moom ñun jigéen ñi jaay fii ñëpp ci croisement jam ñaajo ñun ñëpp laal na laal nañu bu baax a baax ndog-ndog yi moom depuis que Covid 19 bi commencé ba léegi euh, activité yi dafa wàññeeku bu baax a baax a baax a baax parce que soo daan indi benn camion jaay ko benn fan bi du du mat sax deux heures de temps nga jaay ko fi mu ne ni camion bi mën na fi am deux jours léegi nag bu ko defee ku ne xam na ne njaay mu tooy la day yàqu. jotuñu woon oto oto yëpp si kaw la ñuy jaar moo tax sunu ñàkk a jaay. mu mais dañ daan liggéey normal kenn xamul ñu woon dara waaye léegi daal oto yëpp si ginaaw lay jaar loo tax suñu jafe-jafe gën a bëri. Covid bi bi mu ñëwee ñun ñëpp dañ ñoo daaj sarse suñuy bagage ba mu fees ñu sarse ñu ñii a ngi tañtaneel ku si nekk la nga yor si bor si sa mbagg mi tey mënoo koo fay ñun ñëpp nag ku si nekk la nga teg si sa mbagg mi mënoo koo fay waaw loolu la ñu fekke ñu xëy. jox waxuñu ñu suba waxuñu ñu ginnaaw suba xëy tey si midi ñu jox ñu ay kayit nañu 24 heures ngeen dindi seen i seen seen i bagage dañuy daaneel dañuy dañ nit ñi dañ fiy jóge loolu lañ si am ñu xëy yendu fi ñetti fan ak suñuy bagage waaw gis nga kii taxaw nii ba tey amagul fu mu teg waaw loolu daal lañ ko dunde du ndimbal du financement ngir jàppaleen leen ci jafe-jafe bi ñuy jàkkoonteel ci jamono yi mbas mi ba ñu sukkandikoo ci seeni kàddu ñun jigéenu jam ñaar ñu ngi xaar suñu wàll bu baax a baax a baax parce que depuis affaire bi am ba léegi mënuñu toog parce que ñun on vit du jour au jour lépp lu ñu am rek tey jii bu subaa dañuy yaakaar am leneen ndaxte amuñu benn suffisant euh, benn kalpe boo xam ne dañ koy teg rek bu neexee ñu jël bu neexul ñu kii chaque jour dañuy daw pour am dara. ah waaw moom ngay état bi moom. nanu new dimbali guy dimbali ku ne jaaykat yi ne jëm ñaaji ñoom nga war a gën a dimbali sonn nanu banque la ñu dem leb fa un million ci tabaski bi nii ñëw jënd sunuy bagage ba mu fees parce que jënd nañ deux jënd nañu melon ñeen fukki parce que ñeen fu mango ñeen fukki junni ak juróom benn booba temps mu ngi jar paan treize mille cinq cent ñu jënd nañ fukki paan ak juróom muy ñeen fukki junni ak juróom benn jënd banaana jënd pomme moom daal loo xalaat ci fur jënd lingom jënd mandarine jënd lépp ñu ñëw sunu i taabal ba mu fees du pomme du banana du mandarine du orange un million bi daal dana pëng ba ay quatre heures yooyu sama téléphone sonné ma ne allo ami lan la mooy xale bii fi tax mu ne ma am kaay si tëli bi ma ka ko ami gaawe ma maa ngi dee xew si tëli bi mu ne ma ñëwal rek sa jànq bi dafa daanu ma ne ko daanu ba jàmm la mu ne ma sa place bi mooy tàq ba sa jànq bi daanu bi nu ñëwee tamit war a àndal gendarme yi na kenn du laal wóorul ndax mën ngaa àndal affaire bi kalaate te boobaa beneen musiba lay am na bagage bi yàq moo gën ki yàq booba ba tey nag ñoo ngi nii toog yoruñu mënuñu bank léegi la ma téléphoné fay bi ma ne ko man dee maa ngi nii muñal ma rek. camion malien moo taxawoon fee sama place tàkk fa boobu ba tey gisuma kenn ku taxaw fee ne ma dem may dimbali am moyen bi ma jël yëpp maa ko jëlee sama bopp di ko defaraat sama bopp. du kenn kuma jappal ñi nak di dundé yakar né nguur gi dina leen beral sen wàll comme niñu ko défé ci yenen secteur yu ci melni artisanat ak transport ngir ñom tamit ñu daal di fàggu daal di biral li di relance économique bien sûr am nañ ci ndax té ku wax économie Sénégal da nga dem ci secteur de informel parce que bu fekkul won informel bi fermel bi du dox kon ñun informel bi ku ñu jappalé war nga ñu jappalé ku ñu wul aussi war nga ñu jàppale parce que état bépp aide bu muy joxe rek ci ñun la ko war a njëkkee parce que ñi nekk formel peut-être seen koom dara du ci wàññeeku ndax ñu ngi percevoir seen salaire ñu ngi def yëpp mais ñun à chaque fois dañuy xëy 3 heures 4 heures de matin ñëw fii di débrouiller ba ngoon jot. des waaw des femmes battantes. ñoo xam ne ñun tamit ñàkk tedd rek daal lañ xam ñàkk jariñu ñu ngi lancé état bi ci li mu nar def relance économique bi mu boole si surtout ñun commerçante yi. parce que ku ne xam na lii metti na yàqule bi metti na lépp metti na mais nag dañuy sant yàlla di ñaan yàlla na fi corona jóg ci àdduna bi. ñu ngi leen di tàllal suñuy loxo nag ñu jigéen ñi jam ñaajo ñu ñëw jàppale ñu si lii ndax ñu mën a liggéey.